donte ni bus bi tàkk jëlee nañ ko ci tali bi waaye boo rombee rek xam ne lakk gu metti am na fi suuf saa ngi xëm ba tey toj tojuti oto bi des ci bile bërëb mu di attaque boo xam ne ñi ko def ba tey xamuñu leen nekk mbir mu metti lool askan wi yeewoo fi ci yaraax Boubacar Laax bokk na ci ñi fekkee mbir mi. daw nañ ba yegg mais amuñu nan la leen mën a sauver ndax amuñu ndox amuñu suuf te amuñu ay inspecteur pour mën leen kii ñu mujj taxaw. nit ñi di yuuxu ñuy daw ak di wàcc di di jaabante ba mu jege xel nekk ci ñu ne taxawal nañu woowaa 18 18. Euh, euh, image bis bi di tàkk nit ñi di yuuxoo ci biir ku ne di ut foo rawale sa bakkan ba tey dafa des ci xelu bi le vulganisateur atelier wam jàkkaarloog fii jëye ji am. al tàkk ab bis buy daw di yor ay personnes yor ay nit nga dem def ko lii rafetul ñaaw na. am na loo xam nit njaay du ko def quoi nit nit ku correct du def loolu. bu ñu sukkandikoo ci di Chérif Ball dëkk fi ci yaraax. saay-saay yi def bi la ñaaw teef mooy bandi yi nga xam ne jamono gi ñoo tere nelaw askanu yaraax. ils ont passé par par chez nous. barki démb ci guddi gannaaw bu fukki waxtu jotee am na ay eh, nit yu doon jaar sama buntu kër dañoo yoroon ay machette ay gourdan te dañoo nëbboon seen kanam ñu doon wax mu di si ëllëg si benn oto du daw si la sax ñu dem eh, gàllankoor dem ak dikk ba. ñaari doomu aadama ñu ñàkk seen bakkan ci mbir mi juróom jële ci ay lakk-lakk yu metti lool nee nañu cocktail molotov la ñu sànni ci bile bus laata ñu dugg ci biir jël téléphone yeeg lépp loo xam ne nii ñi nekkoon ci oto bi yoroon nañu ko ñi ci ñàkk seen bakkan néewi yóbbu nañ leen sa la dalal jàmm